jërë ngeen jëf vandal yi vandalisé woon dépôt Dakar dem dikk ci Kër Massar tama ëpp leen ni bu mu guddi yi ñu toll l'observateur di ñu xamal ci xëtam njëkk ne ci manifester yamoon keroog ci Kër Massar ñi demoon taali watay Dakar dem dikk yi ci seen dépôt ba ñooñee alkaati yi ñoo ngi leen di wër wër gu mit jamono ji l'observateur nee nañu am na lu mu néew néew lu mat fukki militant yu parti Pastef yi ñu tegagum loxo ci yëf yi ndax jàpp ne seen loxo génnul ci taal gi ñu tàlloon dépôt Dakar dem dikk ba ca Kër Massar waa CICN ak gendarme Padoa jàpp unité 15 bu Kër Massar fépp la takk deri fat am na benn waay boo xam ne l'observateur ne nañu bi ko sandarma yi di jàpp këram la ko fekk muy ngénte doomam libération ne ko waajooje Faali Saane la tudd ca këram la ko waa GIGN fekk muy ngénte doomam ñu jël ko yóbbu moom ak ñeneen ñu ñëwoon ca ngénte la ñu bari ci ñoom nag mbiri vérification l'observateur ne nañu moo tax sandarma yi embarqué leen COUD di centre des œuvres am na ci ñoom ñetti étudiants yoo xam ne police bu Point E da leen a woon ñu bañ duñu wuy ji ba tax ñu saisir waa division investigation criminelle yéenekaay bi mi ngi ñuy fàttali ne ca manifesté yooye lu bari yàqu woon na ca centre des œuvres universitaires bu Ndakaar bokk na ci restaurant argentin ba fa nekk ak restaurant self manifestation yi amoon ca Ngor sursoi nee nañu kër ga ñu fa taaloon te ñuy wax naan kër ga journaliste bii di Cheikh xam ne fa lañ doon jouer série bu un café avec sursoi ne nañu jeunes yi ngor yi ko taal ci seen manifester ga ndax jàppoon ne Cheikh Yérim Seck moo ko moom dañoo juum ko moo ko moomoom moomu ko sursoi nañu bi ñu mujjee jokkoo ak moom moom Cheikh Yérim Seck ci téléphone def na ay fan li mu leen wax mooy kër gi sama kër la maa ko moom te bu ngeen bëggee mën naa leen a woon kayit yi kayitu kër docteur di autopsie bi ñu doon def ci xale bi faatoon ci manifestation yewoon ca kër Massar ñu naan ko Pape Amadou Keita Vox Populi nee nañu ci xëtamu njëkk li autopsie bi wax mooy xale bi arme ko balu fital moo ko rey certificat l'hôpital joxe Vox Populi nee nañu weddina li ministre intérieur waxoon ne moo faat xale bi journal Tribune bindee ko noonee ci xëtamu njëkk certificat genre de bu xale bii di Pape Amadou Keita la ca nekk ñu ne moo ko faat weddina li ministre intérieur waxoon l'observateur nañu autopsie bi nee na Pape Amadou Keita ab projectile lañu ko dóor ci xëtaru càmmoñ bi Ousmane Sonko mu yore téléphone portable ci loxo ndeyjooram dóor ab simisam teg ci kabam photo moo nekk ci xët mu njëkk l'observateur li mu fi defoon fan yi mu di xëy ko fenn kenn ba mu mu jekk-jekk ne coore di wane boppam ak ay yaata yumbe loolee l'observateur xëy di jàngat ñu jànge ci anki dina jàngat beneen bu mu def ci Ousmane Sonko ak désobéissance civile gi mu woote yéene kaay bi gis na ci ne yëf yi paaka ñaari bor la ci moom maanaam mën na ko jariñ waaye it mën na koo lor Basirou Gueye dib chercheur maanaam ab gëstukat mi ngi leeral ci anki dina kay lan mooy désobéissance civile ki koy def nu mu koy defee ak su ko defee lan moo ko ci mën a fekk ñu fekk ci xët mu njëkk réew kaay bi dañuy yeggee condition yu Ousmane Sonko teg ne mooy mën a tax mu dem janoo ji ak Adji jii di ñëw ci tribunal bokk na ci ñu bàyyi ko mu am libertéem di dem ak dikk fu ko neex ak nu mu ko neexee beneen bi mooy ñu def ko ab procès bu dul ànd ak benn parparlo jël dossier bi dénk ko ay magistrat yu farul fenn yu faralul kenn source waa mel ne ku naan ñu gaañaa ngi ci loolu ndax juge bi waroon a àtte Adji Sarr ak Ousmane Sonko di Hippolyte Ndeye jëlee nañu dossier bi ci moom dootu ko àtte ndax moom Hippolyte Ndeye sëram di Victorine Ndeye ministre la ci gouvernement bu Sénégal sàmm sunu réew lii quotidien nee nañu mu ngay gën a yaatu ak a yokk am na beneen mouvement bu ñu taxawal ci seen biir tuddee ko FEM émergence émergence ci footballu senegal ñu xooli stade yéene kaay mi xëy di ñu wax ne finalu CAN U17 bay am ci Algérie tey jii la war dox ci diggante Sénégal ak Maroc ñoom gaynde yu ndaw yi stade yéene kaay mi ngi leen di ñaan ñu wuti beneen juróomeelu coupe d'Afrique ci football bi record yéene kaay nañu du yomb ndax final CAN u ci diggante Sénégal ak Maroc mbiri ñaari doomi gaynde lay doon abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu mi ak ci